كانت يا يسب يكلم دب يسلم طير يعزم كاسب دعاي شرق تسير حيث يفار بئر تفار بلا إساء جسم يعين لا يعين سير يعين بلا إساء جسم يعين لا يعين سيب يعين بلا إساء خدا سفر min nasra bil jismi jola bi laftiraay xalifa Serigne Cheikh Béthio ñu ngi ñaan suñu boroom yàggal la téwér ñoo ngi nuyu sunu sang bu baax bi ñu àndal nga xam ni yaakaar naa ni du ku ñuy présenté ci réew mi ak bitim réew muy Cheikh Alassane Sène tar yàlla mu baax mii nga xam ni léppam da ko jox rasulillah sëñ si la Baye Fall wax na ko léegi yonent bi rekk la bëgg ba ñaari doom yu jigéen ñi mu am yonent bi la leen tudde waaye li nga wax ci bëgg gi mu bëgg sëriñ Tuuba loolu ñu ñi toog mën nañ koo sedd ndax ànd na ànd moom ay yoon ci njabootu sëriñ Tuuba gi yoo xam ne du benn du ñaar kenn ku ci nekk buy dem ci yow yow dangay ngay yàkkamti si seen agsi ci yow wax naa ko bu yàggul cib jotaay ba ci Cheikh Abdoul Karim Mbacke mu Cheikh Modou Fadel mi keroog bi ñuy yéex a ñëw daa mujj jël téléphone ba ca ko doon woote man la jot ni ma kooku ma ni ko Modou Mbuub ma ni ko kooku mun ma Abdoul Karim mbàkki Fadilu nii nii la tuddee waxul sax sëñ Abdoul Karim Abdoul Karim Mbacke Fadilu mun ma ana fu ngeen toll ma ne ko mbakki ñu ngi ñëw mun ne yéen rek laay xaar ma ne ko fii yëpp juróomi minute mbakki ñu yegg si bi ñu ñëw ñu ngi fekk Cheikh Abdoul Karim ci bunt bi ak taali bi yëpp di xaar seexal Alassane keroog bi ñuy waxtaan ba noppi moo ko dugal ci appartement bi ubbi néeg bi muy dal ni ko bii mooy sa ba ci màggalug sëñ Tuubaa gii soxna Bali mu Cheikh Mountakha fa falay falay falay reere bu ñu reeree ba noppi soxna si dana génn ca saal ba ñu amal fa waxtaan bu noppee ñu ñaanalante si seexal san del son Dakar ak yeneen ci kër njabootu sëñ Tuubaa yi mu ne su ko lim bu ñu fi doon lim fi la ñuy fanaan waxuma ci kër sañ Tuubaa waaye ci turux yi sax ci réew mi yépp kenn ku ci nekk yaa ngi ko bàyyi xel sëñ si la am nga loo tudd léegi wax naa bu yàggul ni ndox buñ ci mënta naan mën nu cee sangu mën nañu ci fóot nañ ko tuuri amatul njariñ kenn ku ci nekk ci ñu ñii bu fekkoon ni li mu la defal ci say cër ñu dagg ko ci saw yaram kenn dootul kenn dootul dese cër bëri na ñoo xam ni mënunoo dem di lambar lambari fenn ngir ngir ngir jëfam ak ak ak jikkoom ak fi mu ñu teg ak yoon wi mu ñu jaarale loolu faw ñu sedd kii mooy mooy mooy jëwriñam ale ndaw di doomi abbas ndaw mi ñu tuddee abas Ndaw moo toog ni suñ ginnaaw sëñ Malick magam tudd nga ko léegi imaam mu ngi ni toog moom it bokk ci ci ci ci mbooloo mi ak njóogi mii ñoom ñépp ñu ànd ak seex bi ñëw kon nag bu ñu ñëwee ci kër gi fekk fi sëñ Sall yi muy toog keroog bi may jël kaddu ci Mermoz laata may wax daf ni ma présentel sa bopp ba noppi nga doog wax nga xam ni kon loolu Serigne Cheikh Béthio fu mu musaan dajeeg man daf naan ma yow yow yow yow yow doom nga sa bay sa bay dëkkul Tiwaawan de liggéeyee ko fa indi tay ba googu moo bay gile cuun moo leen fa indi waaye yow li la Cheikh Mountakha defa rek doy na rang la kaala teg la kaala loolu yombul dindi kaala ni la ni la kaala wóol muy Serigne Touba ak ak kurusu xaalis loolu yombul maa ngi lay yëgal nii bi ñuy ubbi Masaalikul Jinaan Seex Muntaxa siyaada gi mu jullee kii moo ko joxe sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara di am mbegte mu rëy ci ñëw bi ñu ñëw tey ci sa kër gi mbégte mu rëy fekk fi say mbokk fekk fi sa cousin professeur di sama xarit aussi suñu échange bu mujjee man ak moom defe naa mooy texte bi ma mujjee bind ci Cheikh Béthio tuddee ko woon les pas de danse de Cheikh Béthio Thioune ont résolu une équation majeure dans la marché du soufisme en Afrique noire ndax dama méngale woon taxawaayam ak taxawaayu Rumi en 1230 avec les derviches tourneurs ci seen taxawaay ci wàllu seen mbégte bu ñu amoon ci seen borom hmm. an ak xeetu sant gu kawe googu hmm. nga xamante ni ku yeggul dëgg ci sa hmm. boroom mënuloo jël wàcc ci place humidité bu kawe boobu ba di ko tekkee ak ay pas de danse lu kéemaane la woon lu ma marqué moo tax ma bindoon ca loolu ma ñëw tey nag ci ñaari wàll benn bi mooy jaale la sa waajur wu tedd woowu ndax bi muy am nekk moo woon ci réew mi mm. beneen bi mooy jaale la sa beneen waajur bi fi bàyyi ko yàggul mu nekk ñaari événement mm. yoo xamante ne ñaari yëpp fekkuma fi mm. tey nag ma jël décision ginnaaw bi ma ci waxtaanee ak Serigne la di ko sant bu baax nekk waxal sëñ Saliou Thioune danaa ñëw seet si ko feddalante ak moom kóllëre ba noppi jaale ko li nga xamante ne moom la ñàkk ñàkk boobu nag mbégte la ci ñun ñëpp ndaxte suñ borom yàgg naa jël waaye musta jël alalu jaamur muy jël boobu ba léegi li mu jël kenn mësu ko jiiñ jël lu mu moomul moom suñu borom te jël boobu muy jël ñun soo amee dimension bu kawe di nga xam ne que jël boobu soo soo jàngee yaa ayatu an nafsul mutma na di nga comprendre ne euh, mbégte rek la war a def si ñun surtout nag rawatina soo toogee nit di la xool yow nga nekk ci mbooloo mi ak mbégte mi ngay transmettre mbooloo mi loolu rek ku ko xool war naa xam ne ndono li wàcc na ci yow alhamdulilahi rabbil alamin nga teg ko nag teg ko defi defe ko defin bu sell defin bu am élégance defin bu dal ak defin boo xamante ne lépp yaa ngi jël sa bopp maasale ko ak ñi nga jàkkar lool te ñoom ñëpp ñu am yaakaar ci yow mm-hmm. mu nekk lu rëy li ma boole nag ak sa waajur mm-hmm. euh, li ci jiitu mooy dafa am bis mu invité Madinatu Salaam mm-hmm. ma koy waajal di ko waajal di ko waajal ba yàlla def mu dugg ci kaso bi mm. may tamit ma niroog moom ci loolu mm. ñu teg ci ay fan rek ci ginnaaw après mm. may tam ma duggaat ci kaso bi donc ñu niroo loolu mais li ma gën a neex nag ci yëf yi mooy roy gi mu yor roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko Cheikhul Khadim ba mu génnee ci événement yi hmm. maanaam ne jéggal na ñëpp hmm. toppul kenn hmm. loolu c'est une grande dimension ci koo xamante ne bi mu génnee su waxoon ñi mu nekkal ne leen am naa lu ma metti ci liñ ma def damaa bëgg ñu fayu kon réew mi tàkk mais xoolal dimension bu kayo bi génn ne jéggal naa ñëpp toppuma kenn merewuma kenn loolu dafa nekk lu rëy mu indi li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def jamono bi muy dugg siwaat màkk ànd ak douze mille hommes taalif naa ci sax nee naa ko sa del si màkk fay na naxa nga mënoon a fayantoo walbatiku jéggale li la tax ñu sopp la cheikhul xadim bi mu jógee ci tukki bi moom itamit li mu li mu def moo jéggal noonam yi chef Béthio daal tàppi ci loolu ci inspiration wu sëñ Saliou Mbacké loolu nag sëriñ bi bëggoon naa seddeel la ko seddeel la ko ci jamono ji ci kanamu ñi ma àndal ak ñi ma fi fekk te ñoom ñëpp di la di la safoo je suis très honoré ci toog bi ñu toog di ñaan yàlla aussi yàlla na fi géej ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di feddalante ak yow kóllëre di la sant aussi ci sa taxawaay ak ci démarche bi nga jël muy démarche ku am kilifa te ku am kilifa non seulement neexuta ba ma yombuta ba ma mais deesul sax yaakaar egg fa mu ne ngir jéem ko nësaxal maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di bëgg lool ci dalal bi may dalal Cheikh Alassane Sène di nuyu ñi mu àndal ñëpp nag di nuyu sunu bokki journaliste yi fi teew di nuyu Serigne Sylla mi nga xam ni moo dox diggante bi ba waral tey nga teew fi euh, mottali nga coloré yal na la yàlla fay hmm, bëgg naa lool nag sa ñëw fii neex na ma lool sant naa ci suñu borom euh, jaxasoo bi it naa ci sawar ndax ku ñuy askaleene yonent bi fu ñu fu ñu tulla tudde tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam te sëriñ tubaa xasaa itam li muy rëy rëy di bari waxu ci dara lu dul yonent kon yéen jaxasoog yéen loolu dañ ciy sawar dañ ciy yàkkamti loolu sax waxantuma laak nag kóllëre gi nga xam ne dox na sunu diggante seen diggante ak sama waajur léegi ci suba rek lay xool journal l'observateur mhm. euh, parti bi ñu jagleel mbiru koor mhm. ñu ci tudd sëriñ bi mhm. di ci wax ay témoignages yoo def ci moom euh, sama xel ma ne kii kii de lay ma sila di wax naan dana fi ñëw tey te booba yow yëg ñoom yëguñu ni yaa ñu xëy tey mi ngi ci mi ngi ci observateur am na passage buñ ci buñ la ciy tuddee loolu yëpp day wane rek mhm. cofeel goo mas a am ci sëriñ bi mhm. cofeel goo mas a am ci njaboot gi mhm. eh, maa ngi la ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax eh, li nga fi wax lépp ci man eh, dafa fekk rek mu nekk ci yéen ndax noonu yi ngeen mel ci ci ci diine mel ko ci askan wi ba ku fuñ la tuddee nit ñi dem ci lu baax ci sa jëf ju baax ci looy wax lu baax ci dox jëm ci réew mi loolu lépp euh, euh, euh, seen melokaan moo ko indi kon sant sant yàlla bu baax man nag dinaa la wax rek sama sama sama sama kóllëre bu may jàpp sama digg ak yow dinaa dinaa ko jàpp dinaa ko doxe bu soobee yàlla li nga def nag rëy na ci man lool ñëw fii jaale si ma sama waajur mhm. sama waajur woowu nga xam ni amuma lu dul woon moom sëriñ bi jële ko fi mu nekk fi di liggéeyal sëriñ tubaa ba làq ngërëm mhm. ba dem fekki sëriñ bi mhm. mu génn àddina nga bàyyi li ngay def ñëw fi dama ko jaale si wax dëgg yàlla awma sa fay sama waajur bu jigéen tamit mhm. suñ borom dogal na mhm. jamono yi la fi jóge muy ay dogal suñ borom moom mooy def lu ko soob te suñ bu dogalee li lay may tawféex mooy li mu dogal mu neex la mhm. bu bu la neexee rek boo ca àndee rek moom day daal di woyof te loola moom ñun ay dogal moom euh, sunu waajur ba sunu jàmbaar ji daan na def daan na nu jàngal ni nu lu likk ci yéen na ngeen ko jàppee mu di ak cant moo xam muy lu lu mel nii. wala leneen. lu mu mën a doon rek jàppe ko ak cant. Mm. loola nag nàmpatal nañu ko ba min nañ ko kon nag eh, sant nañ ci yàlla bu baax maa ngi yeesalaat ngërëm yi ci seen jëm yi ndax wax dëgg yàlla lii daal rëy na ci man rëy na ci man eh, mel na ni sax eh, li ma bëgg a wax lépp mm-hmm. du ma am kàddoom <laughs> waaw ndax yëg naa loo xam ni bu ma sañoon man koo man ko man koo wax waaye euh, yàlla xam na te te te incha allah dinaa jàpp ko kolëre bu baax maa ngi lay sant bu baax di santaat sëriñ si la bu baax a baax a baax ci ci nii mu def ba ñu jokke ba ñu am diggante waaw lii daal lu ma lu ma soppoon la euh, suñ borom dogal na ko tey bu soobee yàlla dinañ ko jàpp. alhamdulilah incha allah maa ngi lay sant bu baax. di di la sant ci turu njaboot gépp nag. xam naa ni moo teeloon na xam sax ni mm. tey la. démb rek ci ngoon la ma ko si la wax. am na fi ci. Uh-huh. ci njaboot gi. sama rakk bu jigéen ma nga ne la toog ñu koy wax soxna maam Benda. Ah, waaye kon dama leen koy wax ñoom ñëpp. ñu ñu ñu ñu ñu koy. waaye waaye ci Mapenda mi ngi si. Euh, sunu taalibe yi ñu ngi fi. waaw dëgg la alors euh, mu ngi noonu. waaye beneen bis du ñàkk incha allah danañu danañu gën a yaatal. incha allah soobee yàlla en en tout cas en tout cas sant naa bu baax a baax sant naa bu baax a baax.